beex dikk bi soo moytul gàllankoor dana sa am gannaaw tabaski ji ndax yenn ci ay transporteurs ñu ngay dànqaafu dugal nañu ab këyit mu di préavis ngir yëglu ne kon soo moytuwul bu fekkee amuñu ak euh, sàkkuteef wala solution ci seen i sàkkuteef daanaka dinañ soobu ci grève ba la ñu doon euh, sàkku moo di ñu respecté accord yi ñu signé woon tàngu seen grève ba loolee 2021 la woon ndajam assemblée générale la ñu woote ni ki euh, démb ñoom responsable syndicaux yi di fàttali accord yooyee ba noppi di ñaawlu brasserie yi nga xam ne takkadeer ñu ngi leen koy teg ci euh, talay bi ba noppi concurrence déloyale bi ñu nemmeeku ci euh, wàllu dem beex dikk bi jàlloo ñaa yor seen kàddu ñu lu ko. su yàlla sàkk ngeen gis garage su Thiès koo xam ne nekk na fa mandaam jeex ñu xuy rek Alassane Ndoye ni ko kaay ma sampale ci garage bi amatul jarul dem élection. ñooñu taxaw leen du fa am. ñu dóorul leen ba gaañ kenn lekk ma nga hôpital su ma si léegi dañu leen doon laaj seen waaye ba ñu ko ba kilifa douane yëg nii mooy Mbaye jaay ñoo ngi remercier ak li mu ci def ba démb ñoo ngi vérifier la ñu naqari woon ca douane gisatuñ ko waaye comme gendarmerie moom jéemu ci police jéemu ci li ñuy def mooy jël suñuy matukaay jàmmarloo ak ñoom. li ci des mooy ministre du transport daje na ak regroupement yi ak transporteurs yi bërki démb ndaje ma daa mujj yàqu. buñ dajee joxe tabaski ak jàmm ndaje mi ñu war a daje Touba fa ñuy jëlee mesure waxtaan ak ñëpp seet yeneen point yi ñu ciy dolli teg préavis bi tegal ko taabal ji gis nañ taximaan yi Simon Pierre Faye euh, ñi doon yëglu ne soo moytu dañuy yëngu-yëngal ñoom it ndax concurrence bi tey transporteurs yi ñoom ñooy euh, daal di ñaxtu accords yi 2021 la ñu bëgg ñu daal di koy appliquer sunu mu gën a gaawee. oui parce que 2021 boobu ak léegi euh, li taxoon d' ailleurs accords yi ak yenn yi c' était pour ñu xeex d' li nga xam ne moom moo jëm ci yenn accident de la circulation xeex ko waaye tam wàññi tracasserie yi nga xam ne moo nekk ci tali bi chauffeur yi yàgg nañ ko jàmbat. Euh, contrôle saa su ne ci kaw tal rawatina ci diggante Ndakaaru ak ak euh, Bamako euh, loolu yëpp nekkoon ay jàmbat yoo xam ne waxtaanoon nañ ci ba amoon lu ñu tënk lu ñu tënk loole nag ba léegi chauffeur si ne amaana am na loo xam ne def nañ ko ci mais ba léegi des na des na parce que jaww mi ngi des xambit ba léegi am na yu mm. bëri yoo xam ne mi ngi fii euh, sonal leen et donc il faut également que nguur gi mën a góorlu ci loolu puisque l'état est une continuité euh, waxuñu forcément ne ñële la ñu la ñu signé woon peut-être ñii mënuñu ko appliquer mais puisque wàllu transport la sécurité routière intéressé ñëpp mais nañu dox ci loolee c' est vrai que nag commencé wul ci régime bi mi ngi commencé woon bële parce que 2021 ba 2024 quand même waroon nañu mën a commencé matérialiser yenn point d' accord yi mais boobaak léegi concurrence déloyale bi gis nga ko déjà chauffeur taxi yi fan yee ñëw nañu dooleeku si avec le transport euh, taxi virtuel yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo fi ne euh, mbir mu war gaynde yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dugg na ci secteur bi ba ci jakarta yi nga xam ne dañ ko toléré rek juste euh, peut-être euh, dans des régions comme Dakar. nga xam ne tere nañu sax lu lu lu lu mel ni transport euh, passager ci wàllu jakartaay ak yeneen yu ni mel. donc looloo tax nag ba kilifa itam war cee mën a góorgóorlu dalal xelu chauffeur si parce que bu seen xel dalul également peut-être am na yenn yoo xam ne duñ ko mën a appliquer assainir secteur bi ni mu ni mu ni mu waree. Mm-hmm. parce que chauffeur si ci seen bopp. ñu ngi jàppante ak seen i ay transporteur borom woto yi ak borom chauffeur yi chaque jour nga dégg xuloo seeni diggante mais lool nañ ci trouver une solution une bonne fois pour tous parce que ñii quand même transport nekk na secteur boo xam ne ma mbay saa yu taxawee Sénégal taxaw mm-hmm. parce que ki nga xam ne day dem xëy transport la yaakaar ki nga xam ne day tukki transport la yaakaar mais secteur transport bu demee rawatina nag bu dee connexion yu bëri na muy urbain ak interurbain mais ma bay dëkk bi dafay taxaw. loolu moo ñuy may ñu waxtaanee kon nag Mamadou Fofana ba tey ci l'accident yi euh, xam ngeen ne sax taxaw nañu jël yenn ci ay matukaay matukaay yooyee. daanaka ak tabaski bi nga xam ne dikk na ba noppi ñu bëri di jóge Dakar di dem ci biir réew yi wala jaabante bi dafay bari lool ñoom transporteurs yi ñu ngay euh, sàkku daanaka euh, yenn matukaay yooyu yenn mesures ñu daal di koy teggi bokk na ci dawal guddi mi dana yombal euh, liggéey bi ñu ànd see Dame Ndiaye El Hadj Diène fan yu néew dox suñu digganteeg tabaski bi ñi nga xam ne ñoom ñooy chauffeur yi daw guddi daanaka ñoom ñëpp nee nañu bu ñu sañoon ñu yëkkati mesures yi ba tabaski bi weesu. daaw de am ñoom problème ci oto yëpp dem nañ si jàmm ñibbi si si jàmm te loolu defe li walaabul daaw di war na walaabul ren. parce que loolu sax mooy tax sa accident yi am li leen di dajale buñ leen dajalee ba 5 heures du matin jot ñu war a dem jëli heure bi gët dañ koy jëli dañuy accéléré te loolu moo mën a ñàkk nañu bàyyi affaire bi oto yi daw tranquille mesure yooyu la sax nag bu ñuy xool ba xool amul benn accident bu mu wàññi ndax accident yi gën a métti ci bëccëg gi lañ ko fi gis. accident yi gën a garaaw bi ñu arrêté mesure la am bëccëg ndara kam tànk talee ngi fi. dawalkat di fi ne oto di fi am accident di am dañuy ñaan yàlla kay yàlla woyefal te bu ñuy wax accident ci ñeen fukki ñeen fukki nit dee na ci accident bi bu naan fanweeri nit dee na ci accident bi c'est parce que oto yi ñu yor jamono bii moo méngoo ak façon accident boobu. ay 1985 86 87 88 89 daawoo dégg oto buy accidenté ñu am na 30 morts. chauffeur horaire yëpp yi ñu fekkee ci stade amitié Grand Médine di daw diggante Ndakaaru ak Casamance di sàkku ñu yëkkati mesures yi nga xam ne yi ñu ngi ko jëloon ci jamono yi nguur ak président Macky Sall. yëkkati mesures yi ngir seen liggéey mën a dox est-ce que loolu solution la Mamadou Fofana. te damaa jaaxle na. nañ njëkk a jël ay mesures. Mhm. ñoo ne fukki mesure la yoo xamante ne nii jubluwaay bi mooy lan wàññi l'accident en deux mille vingt quatre ou si tu veux deux mille vingt de vingt deux mesures. Mhm. te la muy wane ak li nga xam ne moom lañ ci mën a jàngat mooy crise d' autorité dafa am ci mbir yi parce que le ministère en charge des transport su bu mu mënti doon mais sa waay dañoo am jafe-jafe pour appliquer les mesures. Mhm. tegg mesure ñu ngi koy wax mais tamit une loi elle a une portée général elle est faite pour être appliquée aussi xam nga réew tamit sa waay. il faut ñuy waxante dëgg tamit. mënuñu wéy nañ teg mesures yi pour après nit ñi ñuy faatu encore ñuy compter ay morts. mais bu ñu jëlee mesure est parce que ñoom transporteurs yi. c' est parce que ñoom dawalkat yi c' est parce que ñu nekk ci wàllum transport ñëpp d' accord nañ ne mbirum transport bi ak accident yi saa waay il faut ñu jël ci ay mesures. maintenant nag soit on est dans une république wala ñu xam ne ne nekkuñu ci république ñu bàyyi lu neex waaye def. parce que aussi mënuñu bàyyi di lever ay mesures wala ay ministre di di di di di di cédé ci ay pression wu transporteur pour lan parce que nee nañ wéy nañ teg yenn mesures au moment où ay nit ña ngay faatu mais sa waaye loolu xel mënu ko dégg on n'a rien contre les wax dëgg yàlla ku doon wax jàllo ñaam moom sama xarit la mais am na ci yoo xam ne wax dëgg yàlla tamit mënuñu ko bàyyi sa waaye moom muy perdurer di continuer ñuy continuer encore di regretter ak di dénombrer ay morts après ba li xew barki démb ñaari njaganjaay yoo xam ne ne mbirum indiscipline kese lal ko rawante ba ton tour nit ñi ci ci li nga xam ne moom mooy hmm. autoroute bi ay nit gaañu ci mais loolu moom mooy lan mais loolu mënuñu ko bàyyi muy konne beneen bi wàllum concurrence déloyale il faut ñoom it ñu xam ne ne réew mi moo toj xale yi amuñu liggéey ku ci nekk na nga mën a tirer ton épingle du jeu mais noonu ngay def aussi d' accord naa ñu ne wéy nañ ko encadré d' accord munoo di daw di yab nit di encaisser te doo dugal dara ci gafaga état au moment où ñeneen ñu ngi koy def mm. mais il faut ñu may quand ñeneen ñi nga xam te ne nii ay xale nañ ut nañ liggéey ba sonn tey ñëpp xam nañ ne échec bu patent la bu état du Sénégal nañ leen mën a may ñoom it ñu am foo xam te ne nii mais fa ñuy jëli seen wërsëg di mën di dund moo gën ñuy jël gaal gi moo gën ñuy nekk ci naka su dul noonu moom moo gën ñuy def neneen tamit loolu il faudrait que ñoom ci seen biir ñu waxtaan jéem a accepter li nga xam ne moom moo fi am réalité la tey ne xale yi ci loolu nañu xaj na am jubluwaay parce que am nañu soxna am nañ doom mënuñu faj bu mu gàcce am nañ soxna am nañ doom am nañu papa yaay war leen a dundal mënuñu leen dundal waaye xat na ci cag-cag ba ñuy am ñaari junneeg junni pour mën a dundal njaboot ga mais ci loolu nañu mën a tënk ku ci nekk dàq wërsëgam mais ñu encadré ko quand même loolu nekk na loo xam ne man d'accord naa ñoom it ñuy même titre que autres acteurs du transport. jëm ci wàcc ak tabaski moo